mais tuut bi rek ñu ñëw tuuti mais idée bi nan la ñëwee. waaw euh, maa ngi leen nuyuwaat baax nag di leen siyaar baax di leen ñaanal jàmm waaw idée bi nag moom euh, ni mu ñëwee mooy mi ngi ñëw ci sama xarit sama lépp euh, muy Moustapha Mbaye sapar sapar di sama xarit ci moom la idée bi ñëwee ak beneen xale bu jigéen bu ñu doon wax Ndeye Ndiaye waaw ñoom ñaar ñun daal ci la idée bi ñëwee ba affaire bi egg si fi yëpp daal. cun Boutique day mm. woo ñi nga xam ne mooy di leen di leen gaa yu bëri mm. ñu fi toog ñu ne li nga xam ne mooy scénario la maanaam day waxtaan ak ñoom ba pare mm. doog leen woo mel ni si si yéen nete waaw adduna moom xam nga moo doon loo xamante ni euh, rawatina ñenn ci sénégalais yi mm-hmm. dañuy jàpp ne toujours li montane mm-hmm. ndax ku ci mel ni bëri nañu ma woo ñoo xamante ni tey amuñu jot euh, am na ñoo xam Sadou Ba bi moo ma joxoon seen numéro mm-hmm. euh, ku ci mel ni papa suñu papa Mbaye Peex nga xam ne avant ma ko jot rek tegal naa lu mat ay 4 jours di ko woo ku mel ni Kouthia bi ma ko teg ay fan di ko woo ku ci mel ni Sanex bi ma ko tegal ay fan di xam nga ñooñu jot goo xam ne dëgg ñu teg nangam ko jox sax dalee coupé mhm. amuñu jot googu mhm. moo tax koo ci war da ngay mën a gaaw teg sa ba nga xam ba yow doo ko war da nga koy mën a bi may def nag mooy bala malaa laa woo bala ma woo dinaa xalaat man du ma la wooye la laa la war a wax man loolu mooy sama scénario mhm. dinaa xalaat ki lan laa ko war a mën wax ba jàpp ko doog laa woo jàpp la mais en tant que nag di woo naan ko defal lii du ma defal lii non loolu moom yow sax du ma la ko wax du ko def yow ma la cuun damaa bëgg ñu da nga am non non ko def waaw moom ku ci nekk xalaatam rek lay waxee mhm. ah, ki nga xam mooy Thioune Boutique succès mm. ko woote Thioune Boutique Thioune Boutique na ñoo xam ne dañuy li nga xam mooy Thioune Boutique mhm. tey ah, ah, yëg-yëg boobu wala engouement boobu noo ko gisee waaw man moom suñu suñu tubaab dafa def man Baye Fall laa man man man gëm ma ay succès ay nangu noonu man yooyu néew ma ci parce que yàlla dafa dogal euh, euh, benn mbir boo xamante dafa am mooy suñ borom dafa bëgg doomu aadama lu mu bind doomu aadama moo ko ci gënal te te doomu aadama yi bis boo leen jaayee succès suñ borom wàcc la ndax moom moo ko wax boppam moom moo ne képp koo xamante ni suñ tubaab moo ko wax nee na képp koo xamante ni yow doomu aadama nga nga jël nga jël nit ñi nga suufee sa bopp si ñoom suñ borom moo la yëkkati ba sa daraja yëkkati ko mm-hmm. waaye nag heure boo yëkkati ko ci kaw nit ñi suñ borom suufeel la man moo tax ëmma lu nit ñi te li niñ mel nit ñi ñoo la ko def nit ñi ñoo lay seetaan ñoo lay partagé ñoo jël sa vidéo di ko istati ba nit ñi di la xam ñoo yëkkat seen xaaj di la ko may mais ñooñu doo leen jaay succès yow kan nga kon xanaa kon yow ay xara seetaan man léeg-léeg la ma ko wax gars yi dama naa ne man du ma dem fenn di takk masque ku ma woo dinaa la wuyu barke Serigne Saliou ni may waxee yow nii mënumaa xëy soo ba ngoon jot sama téléphone encaissé wul ma 200 messages appel 200 appel barke Salatul damay dem ba sax damay am problème wuyu leen mais damay wuy ba sonn gisoo comme li ma la wax nii mu ngi nii damay xëy damay wuyu ba ba mhm. parce que suñ borom moo ko def mënu ma ci dara. Mhm. suñ borom moo ko def ñoom ñu bëgg la loolu mënoo ci dara mhm. waaye nag la bëggee pare da nga leen koy delloo bañ xam ne delloo nga leen ko waaw loolu rek la nag. Mm. tey suñu ñëwaatoon tuuti di vidéo yi ngay def. Mm. Ah, ban jour nga njëkk nga njëkk a xam ne kat video bi. Mm. perce na dugg si xolu Sénégalais yi. waaw man nag euh, yàlla dafa dogal bi may commencé damaa damaa njëkk woo benn xale bu jigéen bu ñuy wax Ndeye fekk boobu da xale bi daa ñëw lépp ma benn nana euh, bi ma lebee nana bi fay ma nag waaye bi ma fayee benn jour ma gis ko mu rom ma ma gis ko muy wax wax met ma xam ne kii tey nekkul daal nekkul bopp bi am na nekkul ma gaaw yi kat sama téléphone bopp rek di ko tooñ daal tegu jël beneen bi ne ko Alioune Ndeye Ndiaye mun ma ne ko la ko sama nana bi nga fi jëloon mun ma waaye xanaa dof nana ma ko daal di waxee mer nag léegi bi ma waxee mer ma jël vidéo boobu nag isate ko bi ma ko isatee gars yi di reetaan di ma envoyé ay ree di ma envoyé ay ree ma jëlaat vidéo bi moom moom mu envoyé ko mooy mu isati ko nit ñi naan ko waaye kii kala kii kala ma jël vidéo bi ma ko ma ñi di ko seetaan beneen suur bi euh, al ndeysaan mbay sapar sapar maa ngi ko ñaan suñu borom yërëm ko te xaari ko àjjana mu ñëwoon boobu sama mag la xamanteel bu ñuy wax coon chauffeur taxi mu ñëw bitig ba euh, oto bi kii yoon daal di mu ne booy àll fa ma àll pousse goñ mu daal di ñëw affaire bi bi mu ko ñëwee ba dem man xaaram woo ko moom it fayee ko ko ci laa sampé daat ko ne ko allo sëñ bi na nga def mu ne waaw man kooku mbay mu ne man nga ñëwoon sama bitik léegi mais puso ak wëñ bi ma la bi ma la jox fayoo ma ko mu la doo ma ko ma la ko ma la war a wax ma la woowee ci lañ demee ba ba suñ borom tey mu egg fi yëpp waaw laa doon ñëw waaw ndax ah, affaire yi gis nañu ku ku si nekk ni nga dund lu la naqari di nga mhm. dund lu la neex mhm. te ñu commencé li nga xam ne mooy si li la neex mhm. ban nga ban ah, anam nga toog nga d nga wax benn vidéo boo xam ne nga carrément ne bi kat neex na neex neex boo xam ne Sénégal yëpp nga koy cons <laughs> waaw manoom manoom yëpp ma neex waaye xam na bi ma mujjee dugal nag muy borom mayka bi mooy vidéo borom mayka bi eh, biñ ci yoon vingt-huit te ma doon woo benn waaye boo xamante ne dañ bi lay reere boo ko ñoom jox ma vidéo boobu moom waaw vidéo moom bokk na ci li ma daj loolu ndax vidéo dama ci lekk téeméer junni parce que vidéo bi mu commencé daw rek ku ñu wax Souley Diagne ndeysaan daf maa woo mu ne ma dama rëy ba sama rongañ war foo nekk ci tubaab ma teg ko mu ma ñëw ko muy Souley Diagne di ko nuyu baax di nuyu soxnaam maa ngi ko nuyu baax vidéo daal bokk na ci vidéo bëgg yi ma gën a neex mais vidéo bi nga xam ne nag xaw naa cee woon am jafe mooy vidéo bi ma woon sama pap mbay peex moo tax ñi doon wax naan ci ndey kompaloog nangam ñu si bëri dañoo bi biñ ko defee biñ seetaanaatee vidéo mbay peex bi xam nañ ne mooy la parce que vidéo mbay peex bi dem naa ba jot ci pelante mais bi boobu woon def mbay peex waaw li mu def ndax war na jox mbay nga xam mooy cër bi waaw waaw parce que vidéo boobu noonu dem naa ndeysaan ba am ñu ko jëloon sax envoyé ko Adamo ak ne leen cun bitik ni mu def mbay peex mag la waru ko ko soxoo tamit ne leen booy bi day kaf Adamo ne leen booy man la njëkk woo man woo na ma appel jàpp ma man dama ko dama koy seetaan li mu def dara nekku ci waaye mbay peex nag li ko tiitaloon mooy dama <laughs> ma ko woowee ne ko salaamaaleykum maa man kooku mbay peex mu daa ko la xale géwal gi dañoo woon benn 3 millions di def chaque année ñu jox ko benn paak géwal euh, ren nag yow lañ ko bëgg a jox mbay peex ne ma dama doon génn de waaye mën ngeen a ñëw léegi ndax damaa waroon a génn waaye dinaa leen xaar ma ko fuñ la fekk mu tegtal ma man ko waa baax na ñu ngi ñëw mu ne dama doon génn sax waaye maa ma ne ko duñ la ko joxe pare sax dañoo am ñun dañoo defaale ay social ndax dañoo am suñ benn waa joo xam dafa nekk ci hôpital janatu manque problème mu rein léegi nag ñu soxlawaale rein duñ ñëwee duñ la joxe 3000 pare dañ ñuy daggal sa benn rein jox ñu mbay bee nag daggal may saaga <laughs> daal di coupé <laughs> léegi bi mu coupé la woowee ci la woowee benn commandant bu nekk bu nekk janatu hmm. ne ko dafa am ne ko ñi def sacrifice ñi laaj rein yi day def sacrifice woo nañ ma téléphone di ma laaj samay rein commandant bi tamit daan daan na ko jox ma numéro mu jox ko sama numéro commandant bi daan may woo ma coupé ko mu daan may woowaat ma coupé ko commandant bi daan may focal ne ma na nga def xamutoon la mu ne ma ko yow la kan mu la ma ko waxee ma ne ma naan ma naan xaaral daal kuy appel vidéo bi ma kuy appel vidéo rek gis muy commandant bi ma gis ko fi toog yooyu ak policier mu ne man la commandant naa rek gis ma toj ma mais cun ko ne yaa mbay peex mu ne mu ne ma booy yow ko leeral dara du la wooy bu ko jël bu ko leeral daal man quoi d' accord diggante boobu nag li taxoon Cheikh Sarr jàppoon ma jamono jooju loolu moo war a Cheikh Sarr jàpp ma ndax bi mu ma ne ko commande expliqué ko Oustaz Mouhamed ci la gars yi woo woo woo Cheikh Sarr ne ko wol cuun doo ko wooy di nag ci laa coupé tuuti Cheikh Sarr woo ma ne ma man la man tamit fekk commandant ba woo na ma ne ma commandant di doon la woo affaire yooyu dajee loolu moo waroon Cheikh Sarr jàpp moom léegi nag bi mu affaire yi ci la mbay peex commencé ndeysaan woo ma këram ma ñëw mu yëkkat xaalis ma ba pare heure bu wàccee woo doomam ne ko jàppaleen ma cuun ma xool ku mu jàpp tey dem na ba di ma siifur waaw te ñun loolu lu mel noonu Serigne Abdou Karim da ci wax am solo euh, ndax euh, ndeysaan maa ngi ko nuyu nii ndax maa ngi ko gis nekk nii Serigne Abdou Karim dafa am ab daayira bu ko mos a siyaare si ñaar yëpp mi ngi sama contact ak dugal biñ ko siyaare si am ku ne ko ñu ne si wàllum réseaux sociaux yi ndax da ci am ay xale yoo xamante dañuy wax seen kilifa yi ne ko ah mu ne leen dem leen ngeen seetaani xale bi ñu wax cuun bitik kooku de ah li muy def neex na te du te du dépassé kenn bi waxee loolu fekkee ma jotaay bi ñu vidéo ko yónnee ma ko ñu demaat ay fan sëñ Abdou Karim toogaat ñaari fan génnaat ci salle bi woo bëkk néegam yi kenn ne leen eh, sëñ Ablaye Banaana ne ko génne waatal moom xool ki cun jàpp tey ñu génn waat vidéo yi ndeysaan vidéo yaa ngi sama téléphone ñu génne waat sëñ Abdou Karim di ko seetaanaat di seetaan seetaanaat vidéo yi kaay vidéo ko yónnee ma boobu léegi na mu am yéene dem fa te mënu ma faa dem kon moom tamit maa ngi ko nuyu baax di wax ñi li ñuy def kilifa yi dañ ko seetaan waaw ñu tu bari nag waaw tey euh, maanaam def nga lu nice euh, mm-hmm. ndax ku dul Sénégal rek day kontaan si sa ay vidéo mm-hmm. te ku amoon stress jaakaaru cun biti rek mm-hmm. day ree wala bo na def li nga xam ne mooy euh, bànneex ci biir xolam te ñu gis affaire sa vidéo dafa viral ba maanaam munoo toog te ken du seetaan li nga xam mooy cun bitik te toonoon am yan kàddu ngay dénk li nga xam ne mooy ndaw yi ma léegi jamono ku jug def TikTok mais gisoon naa ku fi def comme ni nga def ñu def ko ki nga xam ne mooy Euh, ki nga xam ne mbër bu nekk Pikine mm. xanaa xanaa yow bëggoo ma tey ba nga seetaanee vidéo boobu non non ah Alaaji Mbay waaw man moom comme li may wax moom mooy man li may def dama ciy jàngale mm-hmm. dama daan def sax man samay vidéo yàlla dimbale na ba maa ñaari comme li ma wax mm-hmm. YouTube mm-hmm. benn chaîne bi mi ngi am deux cent mille abonnés benn chaîne mi ngi am soixante cinq mille abonnés euh, maa ngi ñaari compte TikTok benn mi ngi ci un million cent benn mi ngi ci deux cent cinquante euh, te loolu ay sénégalais lañ man li def defuma ngir euh, xàññ nit ki suturaam mm-hmm. mais léeg dama def appel ngir di yee nit ñi mm-hmm. parce que bu njëkk da nga daan woo nit da gis gars yi nga xam dañ daan woo nit la da ngaa gañee nangam da ngaa def ñooñu dem nañ ba kenn mënatu leen koo nax ndax doo xee ñi dax ah, lii am ñoo xam sax da woo di leen nax ndax ah, kooku cuun la te du man mm-hmm. te loolu lépp li ko waral koy dama leen koy jàngal di leen wax leen moytu di leen woo rek ngeen wax dara ak nga xam dañuy toog si jotaay di wax lu ñu gëmul mooy Sonko nangam wala ñi ne mag Sall nangam di wax lu ñu gamul te doo leen woowaatee ñi daw waaw yu mel noonu rek moo tax man may def mhm. waaw di wax tamit ne comme ni ma ko waxee rek TikTok bi wala YouTube bi bu mu jaral kenn muy wax loo xamante ne ëllëg di nga gën àdduna ñi koy jëlaat di ko dugal mhm. te duñ ko dugalee xañ na du neex say mbokk mhm. ndax doo xasee si moomatoo sa bopp te doo xasoo na di wax lu bon wala nga di ko def ba faatu tamit ñi jël vidéo yi di ko dugal mënutoo ci dara mënutoo ci dara say mbokk mënutuñu wax wax ba vidéo yooyu dañ ndax yaa ko defoon kon na gën a rafetaatal vidéo yi nga xamante ni moom lañu dugal ñu gis euh, Thioune Boutique te du duñu wax talab li nga xam mooy euh, euh, maanaam lu xew si Sénégal maanaam li nga xaw li nga xam mooy si dëkk bi te yàgg nga suivre dëkk maanaam lu fi xew jamono ji ay sëy yu tas ak génn di werante génn di wax naq si dul noonu hmm. en tant que Thioune Boutique nekk li nga xam mooy porte de voix soo waxee gars di la déglu mooy jamono ji di nga dégg nga yàqante bi génn say yeeg yooyu noonu am hmm. ta euh, tey loo ñu si mën a wax ak looy mën a dégg ñi nga xam mooy ñooñu waa loolu moom li ma jox mooy mooy na ko gars yi bàyyi ndax weerante baaxut man mi wax yu nii hmm. am na ñu ma def lu ma naqari lu ma mett loo xamante ne mënoon na maa taxaw wax ko mais defuma ko hmm. ndax leeral naa la sànq la bi ma Macky Sall woowee kër bi ma Macky Sall woowee am na koo xamante ne jox na ko sama alal kooku dóor ko lekk sama alal te ba léegi musuma taxaw na diw la yaa loolu lépp nag li ko waral mooy nan la ñuy amate sutura te xam ne sutura mooy lépp daal waaw. tey euh, tey nga xam ne ñoo am président bu bees ñu fay ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey euh, gannaaw nga xam moom la yàlla def jiital ko bopp réew tey nan nga tey soo am loo ko doon yokk wala loo ko doon soñ su lan nga xay wax. waaw Diomaye Faye moom président Diomaye moom li may wax mooy na ko Sénégalais baay mu liggéey ndax am réew wax kese da koo yorul na ko gars yi mu liggéey te xam ne ba mu toogee yàggul gu sax ñeenti weer ñeenti weer kenn mënu ci defar dara nañu waxante dëgg ab tuxu sax doo ko doo yoroon sa kër sax ñu peinture ko tuxu nga doo ko tuxu sax da nga toog ñeenti weer yoo xam da ngay defar du dëgg da ngay defaraat di xool li maçon yàq ak ah li peinture bi baaxut ak li karomaan bi yàq yëpp nga xool xool na ko mu liggéey te xam ak jàmbaaram mëna day toog a toog nañ ko bàyyi mu liggéey yaa ngi dégg ndax ñun ñu si li suñu problème mooy dañoo bëgg fuñ toll di politique fuñ toll di politique politique dafa am année bu mu am am année bu mu am instant yi ci liggéey la ñu toll nañ liggéey te bàyyi politique bi bàyyi waxi politique day liggéey te bàyyi leen ñoom ñu liggéey waaw tey euh, li ma laaj ki nga xam ne ku mënti toogal dama waxee laaj xam naa ku la gis xam na car macha allah jàng nga mm-hmm. xam nga lu diina wax mm-hmm. tey euh, soo waroon wax euh, fonk lislaam tey ban ngay andi ni nga xam ne ñoo ñoo lay seetaan waaw fonk lislaam moom li ma ci li ma ci wax bari na ndax lu ci mel ni jàpp rek mm-hmm. bëri na ñoo xam dañuy jàpp te xamuñu fan la ñuy yéeneen jàpp waaw te bëri na ñoo xam te doo leen ko doon laaj duñ la ko wax jàpp ñu ngi koy yéene ci sëlmu bi waaw dooy la loxo doo yéene dooy galax ndiko doo yéene mais fa ngay demee bay sëlmu fa nga naan maa ngi am yenee pour jàpp waaw tey euh, sa kàddu gu mujj euh, lan sama kàddu gu moom li ma ci wax mooy sant Serigne Touba sant Serigne Touba di sant Serigne Touba baax baax a baax di santaa Seexul Xadim mi nga xamante yaakaaru ku dul moom ku dul moom waaye nag di sant ñi nga xamante ne dañu nekk sama ginnaaw dama jàppale ku mel ne sama papa Souley Diagne maa ngi koy nuyu baax di nuyu ki nga xamante ne mooy caam pharmacien euh, di sama xarit di sama lépp nekk tubaa maa ngi koy nuyu waaye nag di nuyu ki nga xamante mooy Ngouda borom diaspora sopp na bi mi nga xamante ni moo yëkkati may ma ko fële ci cees muy terrain bu baax di sama xarit euh, bala ma comme que saa Touba dafa yàkkamti balaa dara xew euh, damay wax ci moom ndax Sëñ Abdou Lahad dara wax naan sama waa góor gi tuuti na waaye du ma ko wax ku ma deful dara moom dafa maa teete yàgg man muy dip may dawal saret Euh, nekkoon tëli bees lañ xamante woon muy nit ku baax nag nit ku ñàkki ñaan nit koo xamante ni euh, sama cant gi ma doon woote Touba dafa dafa dafa date bi dafa sori woon ndax boobu benn programme ñu amut mais dafa jóge Dakar def délégation am ànd ak suñu bada kiimaan ak ñu Pape ñëw sa cant ga yëkkati xaalis bari maye ko fa yëkkati xaalis bari jox ma ba pare toog ba cant ga jeex loolu moo tax moom ma koy remercier ndax dañoo yàgg man ak moom mu nat nit ku baax nit koo xamante ni jafe na ci sëriñ si dafa am benn jour benn kilifa gu mag woo ma kilifa gu mag nag laa dox ci réew la mag Macky Sall woowoon pale bi ma fa demee kilifa gi bi ma woowee ne ma numéro Saatuba laa soxla ma ne ko bala ma laa jox numéro naa ko bi ma ko woowee ne ko Saatuba kilifa gi la soxla de nangam nangam wallaahi la xasim barke Cheikh Abdou Lahat ak yàlla mooy Tuubaa dana bu ko jox sama numéro ndax man du ma ànd ko jublu billaahi wallaahi wal xasim te kilifa googu ay million la ko bëggoon fay de am lu lu ma sant ma ne ko xaaral ma ko Saatuba bi ma ko bu ko jox sama numéro. ndax man ci ak jub laay dox wallahi la xasim yàlla rek moom ma tiim kon ku mel noonu du toogee ñeen ñi jàllale message yu mel noonu faaw nga wax ci moom muy nit ku baax nit la ko xam Tuubaa la dëkk di suñu xarit di suñu lépp duñ ko wooye dañu wuyu dañuy ñaanal dékkatib xaas dañ ko jox tabaski gi passé xaas bëri la ma yónnee weef na ma séddale ko influenceur yi Tuubaa ma woo ma woo gaa yëpp ku ci nekk la nga ci war a jot ma ma yónnee la ko moom mi xam na dara te bëggul ñu wax ko kon ku mel noonu du toogee ñëw ba egsi faaw nga toog waxal ko lu baax parce que comme que lu bon li la ñuy jël di ko wane ci internet bi yu baax yi dañ ko war di wax loolu képp moo tax ma ne ko toogal kon ma wax li ma xam ci yow doo ko continuer sama interview di nit xam dara umb ko ci man keroog ba may dem ci Macky Sall wër na Serigne nii dama ko téléphone ne ko président Macky Sall moo ma woo wax ko ci lépp mu mu conseil ma la ma cay conseil ma jëfee ko kon nag nit ku baax la Sa Touba ñu koy ñaanal yàlla na ko suñu borom sàmm waaw di ko ñaanal baax yow suñu waay suñu lépp nga loolu moo nekkoon kàddu yoo xamante faaw moo ko teewlu kon émission jërëjëf. léegi Satou Wa balaa muy dem mu sàcc quelque cadre rek. Euh, dañuy santaat yàlla rek jullu ci yonent bi di gërëm suñuy waajur di ñaanal suñu Muntaxa Mbàkke siiru yàlla sama borom bi yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ak mboolem kilifa diine gu nekk ci réew mi di ñaanal itam borom bis bi nga xam ne tey moo tax ñu ñëw fii muy sëñ Siise taw tawféex di ko ñaanal yàlla gan gi nga xam ne tey moo ko gane si ba tax ñu dajee fi tey yàlla na ko yàlla def mag mu am diine am lislaam ci daraje yonent yàlla muhammad barkeb sëriñ Saliou suñu sang ba dëgg yàlla muy nit ku baax di suñu nawle di suñu xarit di suñu lépp ñu bokk lu bari vraiment sant nañ bu baax kontaan nañ di nuyu cuun mi comme ni mu ko waxee rek maag moom ba dara du dara la ñu bokkoon dëkk Touba ak cinq tonnes mi ñun ñëpp ñu bokk dañoo bokk luñ mënta séddoo mooy dañoo bokk Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax cinq tonnes mi Touba la dëkk doon sama xarit doon sama waay doon ku ma jox cër nag bu ñëwee Touba day ñëw ba sama kër seet si ma wax dëgg yàlla muy nit ku baax itam nit koo xamante ni man wax dëgg yàlla dama ko dama ko jàpp te Serigne Touba rek tax mhm. ndax moom lu mu wax rek Serigne bi la waaw cuun moom it dañ koy ñaanal yàlla vraiment mi ngi dund mi ngi mi ngi ci liggéeyam mais teewul chaque jour mi ngi dund ak doomu aadama yi loo xam ne seen xol mi ngi sedd mooy ñi am stress wala ñi feebar wala ñi ne ci jafe-jafe cuun ngi def ay vidéo yoo xamante ni tey ñun dañ koy seetaan di fàtte sax seen jàngoro di reetaan seen xol xam nga ñuy firi te loolu wax dëgg yàlla yonent bi bëggoon na koy bégloo jaamu yàlla yi te moom mi ngi dox ci loolu kon dañ koy ñaanal yàlla rek li mu bëgg ci àdduna moo xam yàlla na ko yàlla defal di nuyu itam bàyyi jilim sëñ Saliou nga xam ne moom maam ba ñuy jàppante Serigne Saliou rek moo taxoon ñu jàppante boobu ay affaire journaliste yeeg yëpp amul mm-hmm. ndax que ñun Vieux Top la ñu xamante woon ma daan ànd ak Vieux ci lu baree bari mu doon waayam mm-hmm. ci lañ jàppante woon man ak moom mhm. ma xam ci moom nag bëgg Serigne Saliou yëmalewu ko dara mhm. muy nit ku baax mhm. ku gëm boppam la ku diñ ci boppam di ko ñaanal yàlla ci barkeb Serigne Saliou yàlla na ko yàlla dénk taraangay boppam ah, milliardaires yi sëñ Tuubaa yi sëñ Muntaxaa di wax yàlla na ko ci yàlla boole ci barke Seexul Xaddim ak mboolem ku ne ci jotaay bi ndax bu ñu sañoon murit yëpp am ndax ñu mën a gën a liggéey sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax ndax ñu sëñ Tuubaa rek lañu am sëñ Tuubaa rek lañu ñu ngi santaat bu baax sama xarit fan yëpp mu ngi nekk sama kër Touba dëgg yàlla muy nit ku baax saa yu tegee tànkam Touba daf may woo téléphone ñëw ba sama kër ñu toog yéen dondoo ma moom fanaan ñu jógewaat fa dem màggalu Daaru Salaam gi ñoo dem nekkandoo ak Baye Baaxem di ko nuyu au baay Baye Baaxem Mbàkke borom Daaru muy nit ku baax sëñ Abdou Baaxee yàlla na ko yàlla fay sëñ Abdou Baaxee yàlla na ko yàlla fay nit koo xam ne saa sune day wàcc boppam di la yëkkati moom saa su rek. ñi xam baay baax yi ñëpp xam nañ ne noonu lay dundee mbokku taalibe bi bu mu gis bokk yow Sëriñ Tuubaa rek su la gisee moom dalay lay yëkkati ci kaw wàcce boppam te moom mooy dereti Sëriñ Tuubaa kon yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla defal mu am gërëmul Sëriñ Tuubaa di nuyu sama xarit yi ma xam ne ñoom laa fa dajaloon yëpp ku mel ne maam Cheikh Babou Cheikh Mbacke ja ñoom ñoon góor a bàyyiwuma kenn rek wax dëgg yàlla sant naa ñëpp gërëm ñëpp sëñ Daawur maa ngi koy ziar baax a baax dégg yàlla muy ay nit yu baax yoo xam ne damay ñëw ñu jël ma teg ma foo xamante ni maanaam dafa ma sax dépassé ndax bàyyi baaxee mbooloo mi li muy bari bari makan mi du ma bàyyi ma fenn dafa jékki-jékki seppi ma ci biir mbooloo mi dugal ma ci néegu boppam bi man ak moom ak yàlla ak sëñ daawur ñu seq lu bari waxtaan lu bari mu fonk ma nag ma xam fi ma teg ba ma demee ba war a ñibbi ci biir baas bi ñëpp gis nañ ko daa jóg ànd ak man ba ci xaarim gay ñu taxaw teral ko ngir sëñ Tuubaa ba pare ma door a jënd ma gunge ma kon kooku am na fu ma teg maa ngi koy ñaanal ci barkib Serigne Touba bis bi muy defal maamam maam seex Anta boroom gaawaan yàlla na ko gën a mën maa ngi sant sama gaay yëpp ma kenn wax dëgg yàlla dama xaw jàpp ni am ay gan yu mu bàyyi kër gi rek waaye amoon na ay yéene yéen doon doog yéen ba ngoon jot barke Serigne Saliou sant naa leen dañuy laaj rek ku ne Sa Touba ni nga ki nga xam ne mooy Modou Xarañ doo te ma jëm si combat contre Siteu. waaw comme que tey xew moo ñu fi moo ñu fi indi nag bu ma rek ñu concentré ci xew yi. Euh, ci kàttanu yàlla am na yaakaar ne du dina fi yegg si léegi bu ko defee bu ñëwee moom incha allah rek boo ko ci laajee xañ ne mun na la ci tontu waaye comme que man xew bi tax a jóg moom wax dëgg yàlla dafa bëgg ñu concentré xew bi rek ba bañ bañ amaat yeneen jotaay yi ñu war a yaatal incha allah bis bu ngeen fekkee sama kër rek ba ñu war a yaatal ci yenn jotaay yi boobaa lu ngeen laajee dinaa ci tontu waaye tey dama sol sama dàll ngir jullit ak mbokku taalibe bi nga xam ne moom lañ bokk boole ko mu doonaat sama nawle doon sama rakk muy sëñ Cissé ñoo bokkoon nekkoon Touba nekkandoog ci Baye Jili Mbàkke borom léegi léegi mu yar ñu nag am lu bari lu mu def ci ñun tey ñu ngi koy sant bu baax a baax Baye Jili Mbàkke yàlla na ko yàlla fay ci barke Cheikhul Khadim incha allah dinañ gën a yaatal bu soob yàlla maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyi ma kenn vraiment sama xol sedd na trop sant naa leen gërëm naa leen jërë ngeen jëf yàlla na ñëpp am jàmm barke Serigne Saliou